m'a dit remercier et d'encourager encourager Niel nous et d'encourager encourager aussi les joueurs si un courage pour nous parce que ça il faut être courageux pour le faire T'as bi qu'on ko waree def yàgg na lii bi ngeen ko il dafa yàgg parce que tey dit ku c'est c'est exemple de tout. salaire au jour il rek de de sa football et c'est normal

produit nawetaan la produit championnat bi la et que tey di lima championnat bi jox lima ma Sénégal jox ni rek la ko mën faye su ma gisee jour yi fi bu ñu demee entraînement du ñu am lu leen dello wala affaire yu bari mais loolu lepp tamit lenn rek ko waraloon muy ñàkk organisation et fu organisation am fu organisation am lii lépp dañ koy xeex mu jóge fi ndax waxti yi euh, mais nag bu ñu fàtte ni du benn réunion rek mu jeex de parce que du pour ñun aussi suñu doom ak suñu sët yi ñëw la ñun dañ ko commencé mais bu leen fàttali du seulement championnat góor ñi jigéen ñi tamit seen championnat si lañu ñu bokk na leen koy organiser syndicat bi yooyu yëpp daf ci war taxaw bu ngeen demee nag ba nga xam ne tey jii am na loo xam ne neexu leen si championnat bi parce que da ngeen di dénk seen bopp da ngeen di dénk seen bopp fu ngeen di dénkee seen bopp tamit buñ leen ne bàyyi leen da ngeen di bàyyi buñ leen ne jàpp leen da ngeen di jàpp parce que il faut que ñu nekk benn du du lu nga xam ne dafay yomb du lu nga xam ni dafay yomb